Ousseynou Ousseynou Koukante ngi noonu mu ngi mu ngi dem. ko Kounkandé à Sarr niñ la waaw voilà oto mbaa ngi nii mu war a génn Kounkandé ngi nii ma ne ko Kounkandé Kounkandé ngi nii ma ne ko Kounkandé ngi nii Sarr Nimzat ci Kaolack ak ah, kenn Kounkandé ngi nii Sarr Nimzat ci Koungheul xaral géej gi Koungheul. Koungheul day dugal arrêté ah Koungheul mu ngi dugal arrêté arrêté duul yow doo xeex tuus doo xeex tuus da ngay duul yow. Koukante ngi nii Ousseynou Ousseynou Koukante ngi nii Koukante. Ousseynou Koukante ngi noonu mu ngi dem mu ngi